asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu lu bëree bëri ma di leen bëggee di leen wax ni man la Paco artiste comédien ci troupe Soleil Levant bu Thiès donc euh, sama tur dëgg di papa Amadou Ndiaye Mbissane donc euh, maa ngi évoluer ci euh, théâtre boobaak léegi def ay yeneen formation yoo xamante ne ni ci lu demee ni ki secourisme def formation aussi ci lu demee ni ki relais communautaire UST Sida donc nekkoon relais mu xaw a yàgg tuuti nekkoon élément wu santé aussi di moniteur de collectivité éducative donc euh, <laughs> damay bañ bu ma limee mu xaw a takkar naa sax mu jël temps bi donc euh, ñi ngi noonu daal xaw a jaxasoo tuuti ci yenn euh, liggéey yi mais lépp rek aar lëkkaleel ak moom. ci wàllum artiste comédien. Euh, gëj nañ laa dégg fan nga toll ci liggéey bi. waa ci liggéey bi ñu ngi ci toujours je suis né artiste et je artiste donc euh, damay nekk comédien durant tout ma vie et fier de l'être. ci nga nekk nii ci li ma nekk fi mu toll nii maa ngi ci ay renforcement de capacité maanaam euh, di dolli sama njàng ci li nga xamante ni mooy sama liggéey. ci loolu laa nekk donc xaw ngi nañu gëj a gisante mais taxut ma euh, dajale samay loxo toog donc maa ngi ci yoon bi toujours. yaa ngi joué quand même. Euh, si maa ngi joué bu ngeen seetloo tout récemment ci koor gi rek joué naa ci sama troupe ci ndogu bi donc euh, maa ngi joué aussi ci sama association muy ARCOTS mi nga xamante ni mooy association bi lëkkale artistes comédiens yu théâtre sénégalais yi. donc euh, des fois dañuy am ay sorties yoo xamante ni dañ ci jouer maa ngi jouer aussi ci sunu benn compagnie benn projet bu ñu am entre euh, Arcots ak Suisse yi en collaboration ak euh, Cafar donc ñu ngi liggéey ñu ngi liggéey ci compagnie boobu aussi maa ngi jouer maa ngi jouer xëy na da ngeen ma gisatul ci tele bi mais maa ngi liggéey toujours. mais yow da ràññeeku ci soleil levant ñoom ñu ngànk wéeri wéeri yow lu Paco lu tax boo ko wéeri wéeri. Euh, li tax bokkuma wéri wéri du ma ci waxati damay xaar ba ngeen gis Cheikh Ndiaye comme c'est le en scène ou bien Cheikh mon directeur artistique wala Aziz le scénariste ngeen laaj leen ko parce que maa ngi bëgg a promettre Sénégal nag muy xaw a bëgg a bari et wax bu baree rek dëgg yi dañuy daal di wute. donc dootuma waxati ci loolu jéggalu naa ko bu wér a wér et que jéggal ngeen ma ko ba ngeen gis euh, gaa sama grand yi ñu wax ci. léegi euh, ñu bëggoon nga expliquer ñu nag naka nga ñëwee ci théâtre euh, man ni ma ñëwee ci théâtre ci théâtre Soleil Levant wala nan laa duggee ci théâtre donc man man sama dugg théâtre scolaire la départ parce que je me rappelle bi mu tombee ci campagne wu Aminata Mbengue Ndiaye mu nekkoon euh, ministre de l' éducation nationale xaw ma ministre de la femme di def euh, SCOFI mooy programme pour euh, jigéen ñi dem jàng ji ci laa njëkk a théâtre moom laa njëkk a donc bi ci topp moo doon le messager de Bour Sine Coumba Ndoffène xam nga ku jàngee Kaolack moom pratiquement boo defee loolu ay oh, imitation ay Maba Diakhou ak affaire yooyu de temps à autre ñu dem euh, ñuy dem di ko def di ko def jóge primaire continuer secondaire di ko def ba bi may bàyyi jàng di ñibbi si Thiès donc euh, il s'est trouvé un jour Kader yàlla na ko yàlla yërëm te seral ay yaxam sama xarit ñu nekkoon sama kër ak ngalam euh, Kader Mbay Dosé ñu amoon benn suñu benn sœur ñu koy wax Astou Diaw mu dëkk jaxaaw fii ni damay bañ a wax surnom bi mu mere ma mu ñëwoon seet si maam Kumba ñoom ñu war a dem répétition parce que dafa tombé woon ak nawetaan yi ñu ne ma bul fi toog di fi ennuyé wu ñëwal ñu ànd dem vacances laa daan ñëw ci es boobu nañu ànd ndoo ñu dem boobu ñu ngi war a dem ko ñum tuq su répété ji ñu dem ñoom ñu am problème mu benn rôle les cadets ne leen man Papa Ndiaye dama daan dégg muy wax ne daana théâtre théâtre école Mbaye Dozé ne nañ ko ko jox mu joué ko Aziz jox ma rôle singili muy benn mara donc ma interpréter rôle bi mu séduire leen mooy sama dugg soleil levant ñu ñëw waxtaan ak sama ay waajur aussi sama amu ci woon benn problème puisque ñoom majorité bi ñenn ñi ay frère am ñenn ñi ay doom lañ ci moom donc euh, mu rafetlu ko parce que sama biir famille laa mu rafetlu ko et ma aussi ma dem defi ji théâtre euh, nee nga bi nga bàyyee jàng ci te da doon ñëw Thiès vacances fan nga nekkoon ak kañ lu tax nga bàyyee jàng Euh, man maa ngi juddoo Kaolack sama papa lañ fa affecté woon mu fa doon jàngale ba nekk fa inspecteur académique bu région de Kaolack euh, Babacar Ndiaye la tuddoon ñu gënoon ko xam ci turu Ndiaye Flamme bëri na autorité yu nekk Sénégal tey jii moom moo leen jàngal donc kooku moom moo yób moo taxoon ma nekk Kaolack ma defee fa sama cycle primaire Immaculée Conception bu Kaolack donc sama secondaire maa ngi nekkoon P12 li tax ma bàyyi jàng caprice d'enfant parce que même année bi may bàyyi jàng maa ngi bàyyi jàng troisième te j'avais moyen comme moyenne première semestre treize vingt six dàkku ñu ma mën maa bàyyi jàng caprice su xale la woon moo tax lu ma lu ma tere xale ci caprice su bàyyi jàng rek xam naa li may wax et tous les enfants. mais caprice yu mel yu demee naan la. je préfère ne pas y <laughs> parce que bu ma ko waxee sa tellement ridicule après ñëpp dinañ wax ni il est trop capricieux par contre que yëfu xale la. waaw ah mais may ñu ci tuuti rek quand même quand même may ñu ci tuuti rek. <laughs> non non bàyyi rek ma bàyyi mu jàll doo bàyyi rek bàyyi xam nga des fois dafay am yuy xew donc yiy xew xale daf koy bëgg a ndool mu dem école donc am benn période am lu xew. ma ne dama ko bëgg pour di ko yóbbu école sam papa ne ma il faut jamais être esclave de la mode jàngal bul xewandoo ak li xew boo amee sa propre indépendance financière yow yaay jëndal sa bopp li nga bëgg mais jàng lañ la sant comme euh, papaam la ma tuddee donc xam nga rek papa yi dañuy xaw a am tuuti caprice ma ne non man xam naa ne bu ma ko nappee ci deux jours dinaa bàyyi jàng bu ma jàngiwul après dina def li ma bëgg deux jours yi jàll. moom mu wan ma ne ma moom moo ma jur donc ma toog moom it mu téye loxoom waaw loolu mooy sama baay jàng. kañ nga ñibbi si Thiès ak lu la euh, li ma fi delloo si mooy dama ànd ak sama papa ñu ñëw vacances euh, benn 6 août donc ñu ñëw mille un 2001 euh, le 18 août mu décédé mooy sama ñibbi si Thiès waaw muy 18 6 août défini laa fi ñëw. donc mais décès mooy le 18 août 2001 euh, mooy sama ñibbi si Thiès définitivement par contre vacances laa fi daan ñëw chaque année puisque sama yaay moom fii la féete woon waaw. Euh, à part théâtre bi que am nga looy yëngu sur le plan professionnel. Euh, sur le plan professionnel j'ai fait pas mal de formations comme ni ma leen ko waxee léegi je monitaire moniteur de collectivité éducative donc euh, élément wu santé la sama yaay. femme de développement la sama benn yaay ma euh, Mathieu Diouf ma di ko nuyu de passage sama yaay boobu des fois mu weñ sama loxo ne ma defal lii par force defal lii parce que moom loolu la gëm donc euh, dugal ma ci projet yi liggéey naa ci projet yi xam lu bari ci projet yi donc euh, à part théâtre bu ma nekk ci théâtre rek maa ci santé wala social waaw ci théâtre bi boo seetee ci ginnaaw li nga joué yëpp ban la ci gën a marqué ak lu tax Euh, euh, li ma ci gën a marqué <laughs> man je pense que ni sama majorité rôle yi li ma ci gën a neex mooy yoonu ndaw mooy bi may interpréter rôle lu dof bi parce que li ma ci neex mooy dafa dafa dafa dafa daf man neexoon donc faw fa laa ko defoon faw kaay la woon donc ma focci et euh, j'ai trouvé que man j'ai senti que ni génn naa donc dérangé naa pas loolu moo doon objectif bi dem naa ba boole ci lu ci bokkul mooy moment bi nga xamante ni maa ngi tëdd ci grain de bi mooy jalu suuf bi di xaar Sanekh pour mu ñëw pour toog ci bokk ci woon parce que damaa nekkoon ci biir rôle bi dugg ci amoon amouru rôle bi ba improviser loolu et équipe technique bi aussi acceptel ma loolu moo tax ça m'a beaucoup marqué. Mm-hmm. waaw bu ma sañee tànn dama naan moom ma ci gën a neex mais lu ma mës a joué neex na ma lu ma sama metteur en scène jox ne ma joué ko ma joué ko satisfaire ko ci rek neex na ma waaw. Euh, ci wàllum théâtre bi lan mooy say projet fi mu nekk nii. lan mooy sama projet joué ji cinéma ah waaw mais kuy yor da ngaa ñaan yàlla dox donc man je vise pour dem defi ji septième art. donc euh, loolu mooy sama projet <laughs> maa ngi ñaan yàlla mu jàppale ma ci ku may ñaanal nga ñaanal ma yàlla jàppale ma ci lool est que dox nga ci ay jéego. Euh, waaw ñu ngi ciy jéem donc euh, ñu ngi ciy wax ak ñi nga xamante ni ci côté boobu la ñu féete ñu ngi ciy jox aussi ay pàcc parce que ñu ngi ciy jouer ay yenn rôle yi comme bu ñu boo demee bu ma sañee lim mun naa lim les hautes pirogues sur terre. donc muy benn cinéma boo xamante ne ni dem na sax kaan film bu dem Cannes donc euh, ma nekk ci donc loolu yëpp collaboration la woon ak su suñu yenn mag ñi nga xamante ni ñoo ñu jiital te xam suñu mbébét donc euh, ñi ngi ciy def ay jéego ñi ngi ciy def ay jéego macha allah. théâtre bi ni muy doxee nii yow lan moo ci sa gis-gis boo xoolee ci kaset yi génn yëpp nga di ko seetaan di ko jàngat ban conclusion nga ciy tiire. ban conclusion laa ci mën a tiire dama lay damay wax ne nit ñi liggéey nañu. nit ñi liggéey nañu mooy fi mu toll nii boo xoolee man je prends directement la cas de moo wiiri wiiri boo xoolee wiiri wiiri da ngay xam ne c'est des professionnels ñoo nekk di liggéey li ñuy liggéey bu commencé kenn dootul nekk ci kër yi même bu ma ci bokk ça fait plaisir man dama koy seetaan bu ma rëccee dama koy seetaan ci sama téléphone. donc pour vous dire que ni nit ñi liggéey nañ bu dul ñooñu ñeneen troupe ñu ngi fi ay dina ma neex ay euh, nu mu tuddati mais tout récemment yaa ngi gis jànkeen ñi ngi liggéey ñoom aussi booy royukaay yi ñu ngi fi pour te dire que ni bu njëkk da nga daan jaaxle amuloo loo def wala complexe nga dem defi ji mécanique wala dara nga ne awma def non waa koñ bi ASC bi am nañu équipe bu théâtre bàyyi ma dem fa di toog di répéter loolu la woon mais léegi liggéey lañ ko def. liggéey lañ ko def li ma mun a ñaaxee ñu gën a ndaw ñi mooy nañ def di formation parce que métier bu noble la ñu am métier bu noble lañu am am nañu opportunité yi nañu dem jàngi ji parce que aar am na fu muy commencer toujours mais bul xalaat fu muy am donc ci moment bi nga mënee ci ngay jéem def ñu xam ni jéem nga donc man ndaw ñi ñi nga xamante ni teg nañ ñu Euh, en fait ñooy suñu relève bu ma sañee wax ne ñoom ñooy suñu relève parce que comme c'est éphémère et c'est euh, lu éphémère ça dure pas donc suba am na ñeneen ñuy ñëw ci suñu place ñooñ di ñëw ci sunu place nañu fexe ba bu leen yàlla mayee don bi parce que don de Dieu dafay am bu leen yàlla mayee don bi aussi nañu fexe ba dem jàng ji dolli ci li ñu am ci seen don. Hmm. Euh, est-ce que mas nga joué benn rôle génn ci mbedd mi am ci ñu am def la ci dara wala affaire yooyu comme dof boobu ni nga ko joué Euh, joué naa benn rôle génn ñu def ma ci waaw parce que tolof tolof joué naa ko mu tombeek sama grand frère papa gaañu ñu nekk ci enterrement bi booy ceinturé miiru cimetière bi taxaw di te nijaay xaar ma nijaay xaar ma parce que man loolu laa doon wax ci kii donc euh, ça m'a fait mais comme ñun ñoom xamuñu moment bi ñun ñuy nekkee ci bonheur wala ñu nekkee ci. malheur donc des fois yow yaay muñ yow yaay euh, jéem a euh, nat ci sa bopp euh, téye sa bopp fexe ñoom ñu bañ laa am luñ ne jéppee donc ci loolu ñu ngi ciy xeex ak sunu bopp à chaque fois ba lépp lu satisfaire sunu ay fan rek dinañ ci jéem a taxaw donc loolu moom ça m'avait fait trop mal mais sant yàlla la. Paco ndax théâtre bii mu topp mi ngi koy indil lu lu mu mën a suturlu. Euh, sant yàlla man euh, tout ce que j'ai tey bu ma sañee wax dama naan théâtre moo ma ko jox parce que euh, bi may dem di def ji sama formation Croix-Rouge fekk na ma ma nekk su ma sañee wax dama wax célébrité parce que nit ñi xam nañu ma bi may dem di def ji sama formation moniteur de collectivité éducative fekk na maa ngi théâtre donc bi may dem di def sama tant d'autres tant d'autres donc man damay wax ni bunt yu bëri théâtre ñoo ma ko tijjal donc euh, bu ma sañee wax man damay wax ne moom waa maa ngi dundee sama aar parce que taxawuma ci kenn ba fi may waxee ak yow nii ne la lii mooy sama soxlay bopp dimbali ma ci donc ñaanuma kenn maa ngi sant yàlla ci li ma am et loolu rek doy na sant yàlla donc euh, je nourris de mon art. am na soxna. Euh, pas encore. loolu kañ lay doon. <laughs> du yàgg dara. ba <laughs> ko gis na ko mu war a wékk wékk buum. kenn waxatu ko mbéem buum gaa nga ca loosam ma wékk. <laughs> sama kàddu gu mujj daal mooy maa ngi leen di gërëm yéen ñi nga xamante ni yéen a def déplacement bi et di gërëm population sénégalaise bi ñoom xam nañ li tax ma di leen gërëm waaye dama leen di wax rek ne leen man maa ngi fi maa ngi toujours Troupe Soleil Levant et lu jot rek yomb maa ngi suivre net bi nag. maa ngi gis commentaire yi maa ngi leen di wax ni je de tout cœur avec vous mais na sedd <laughs>